dañ koy rafetlu à plus d'un titre suñu seet sakal bi tey ñu commencé woon ci suba ba léegi dañoo toog monsieur le maire romb ak potom ñu gis ko mu droité wàcc ñëw lu vraiment def fi acte bu am solo ñu gis ko nag depuis le premier ci ay muy bale ay mbedd ak yooyu noonu di set setal dëkk bi ci initiative président mais même bu initiative président ci initiative boppam ñun waa Thiès yëg nañ ne am nañ maire yëg nañ ne am nañ maire bu jege askan wi maire bu maire ba nga xam ne du xeeb kenn maire ba nga xam ne yi tey nit ñi yi tey dëkk bi rek moo ko soxal ndax ci otoom la romb ba ko neexoon continuer tàllal ñu loxo wala mu ne gisuma leen mais daa taxaw wàcc c'est pour vous dire que ni moom lépp luy setal lépp luy defar moo ko soxal kon nag loolu amuñu fay monsieur le maire jërëjëf yal na la yàlla fay yàlla na la yàlla kattanal yal na la yàlla dooleel ba lii sa mëbit ci dëkk bi nga def ko ndax li ngay daj ci ah ñun nag amuñu lu Thiès dañu bokk ko dañoo comme ni ñu koy waxee jëloon ko seetlu ak ki ñu defalal rek la ñuy jël ki nga xam ne gis ñuy defar mu ñëw di defar moom it ñu jël boole ay moyens ak tuut yooyu noonu boole ci di dëkk mën a jëm kanam ñu loolu lañ jëm gis nañ ci monsieur le acte bi acte bu rafet la ñoo ngi la ciy sant di la gërëm jeunes yaa ngi fi femmes yi dañoo def toog yi añeeg yooyu noonu mais vraiment ñoo ngi lay santaat encore une fois de plus ci sa taxawaay ci su suufee ci sa taalibe ci sa yëg nit ak sa fonk doomu aadama ak sa bëgg Cees di rafetlu lu mel ngir Cees suñu Cees waa Sénégal yi ci des sax Cees seen Cees ndax tey ci euh, Cees si mu positionné moo waral mu doon Cees ñëpp di Carrefour xam ne tey bi fii la raay bii nga xam ne mi nga waaj a dégg euh, maanaam seet mooy xol euh, tey jii ci wàllu diine foo ci bëgg a def da ngay jaar bu fekkee ne gis nañu ay citoyen yoo xam ne ñi ngi jóg di yëngatu di donner le bon exemple di nekk ci taal mooy ñu nit suñu bopp ñu won leen di yëg nañu ne li ngeen di def lu baax euh, ñeenti at ci ginnaaw la ñu tàmbalee woon di def dañ ko crédit du leadership local jox local jox raaya ñoom prix Thiès am ci prix ci altine yi bu ñu demee di def altine yi Thiès nag ba président woote gaawu Sénégal muy samedi premier samedi du mois loolu dafay wane ne yoon wi noonu la te yéen ngeen ne ci lool xaaru leen bis bi nga xam ne moom la ñu woote muy bis bi nga xam ne caméra yi dañuy bëri ah euh, ñëpp di yëngatu ku nekk di def ngir salak yu mel noonu yéen da ngeen a toogal seen bopp. nekku leen fi di wër fu nekk di ko publicité di def loolaa waral euh, ma ma romb seen leen te man du ma romb fenn ñuy def lu mel ni rawatina ci biir dëkk bi te du ma effectivement waaw loolu moom loolu moom loolu loolu dafa ko mënul man sans bopp ndax dèjà dama naan ah ñii de dafa mel ne dégg nañ message wala ñii yëgoon nañu ñun li ñu yëg bay joxe message bu mel alors kon li ñu war mooy ñëw wan leen ne yéen a ngi ci yoon encouragé waale ñenn ñi nga xam ne ba ay ndaw lañu mag ñi woo leen ñu topp leen ñoom ñu gis ne li ñuy def ñu caaxaan lu am solo nit nag li ngay def tant que néew ñu diw dafa dof rek mooy mel ne néewul. ak loolu parce que xam naa ne ñaar ñi ngeen rek fekk noo fekk ñeneen ñeneen ñi ngi di romb daal di jàpp ne dof yaa nga ne ñoom ñu ngi dem def leneen daal di ataaya li jëm ci la. waaye jàmm jooju nga xam ne ñoom ña ngi koy am ba tala naan ataaya yéen li ngeen def bokk na ci lu leen koy jox. kon ah, ñu leen di encouragé bu baax ci lii. ji ñu wax léegi ne euh, Ameth Mbaye bi nga xam mooy directeur des services de la ville moom ci boppam du euh, yéegee am na loo xam ne moo ci war. mooy ci wàllu voilà waaw pour que wàllu tool yi beeg yooyu. Ah. loolu ñoom dina am loo xam ne dañ ko ci bu ko defee ñuy ñaan lii nga xamante ni moom moo tàmbali mu law ba yegg seen i. ñun ñoo bokk dëkk bi. lu ngeen di nekk ñu nekk ci effectivement mais lu ne ngeen ne ci ñun. effectivement maanaam waa dëkk bi yëpp dañu war a sentir dëkk bi dafa war a ay doomam. ci lu mu di nekk. Mhm. yow loo xamante ne du loo sentir du lu bon tamit. Mhm. nit mën na laa woo ba def ci parti politique wala ci élection nga bañ ko wuyu. Mhm. waaye nañ seetal suñu bopp ah. wala diw feebar na nañu seet nu dajale suñuy dërëm ak suñuy koppar mu faj ko maanaam yooyu dafa doon ay initiative yu am solo yoo xam ne ku la ko mën a wuyu man nga koo ko jox waaye nga seet la nga mën nga def ko mooy comme lu mel nii nga barkeel waaw jël sa doole même bu doon ñaari xob yooyu jël fa mu ne dem def ko ca fan ca poubelle ba loolu rek jar na ko leen kàttan defal leen taw feex ba ah, doon lu yaar ba nga xamante ni ngeen dem sax ba boo wér ci biir wala ba xam jërëjëf waaw jërëjëf yàlla na ko borom jërëjëf